justement en parlant de la DPG euh, Ousmane Sonko wax na ci vous êtes député à l'Assemblée nationale est-ce que comme les députés de Yewwi euh, de pas de Yewwi de de tax euh, maa ngi ñëw ci yéen ba tey de Benno Bokk Yaakaar vous vous êtes senti offensé wala révolté bi Ousmane Sonko tenir propos yooyu xam nga quand on est dans la vie des institutions quand on dans la vie des on n'est pas dans un domaine personnel c'est à chacun nga xam responsabilité bi nga bi nga bi nga war a am man je trouve simplement que on aura on aurait pu faire l'économie de cette crise parce que pour man gisuma lu muy yokk article cinquante cinq nee na le premier ministre war na mën a ñoo def DPG am euh, premier ministre bu bindee assemblée nit ñi dañoo war a xam ne que parce que dañu bëgg a jaxase débat règlement intérieur bi ak DPG bi mm-hmm. premier ministre constitution nee na que war a ñëw def sa DPG mais keroog bi ñu bëggee assemblée bokk ci commission littorale bi ñu def dañu bind président assemblée pour mu tànn ay député assemblée woo bureau waxtaan ak ñoom jël décision tontu ñu ko bind mais premier ministre bu bëggee ñu DPG am na ñëw andi bind président assemblée ne ko dama bëgg ñu def sama DPG bu egsee assemblée la lay def mais bureau bi ñooy réunion am date bi jox ko conférence des présidents conférence des mooy les vice présidents et les présidents de commission seen liggéey mooy arrêté agenda assemblée suñ ñëwee premier ministre dafa ñëw def DPG am tel jour après xam nga moo stop dañ naan président groupe dem leen waxtaan. c'est ce qu'on appelle un débat organisé. Mm-hmm. dem leen ngeen waxtaan bu ñu demee waxtaan par exemple comme comme DOB bi débat d'orientation budgétaire bi. ñun ñoo toog man maa nekkoon coordonnateur des non inscrits man ay dafe Lamine Thiam Abdou Mbow ñu toog ñu ne la séance va durer trois cent quarante cinq minutes. quarante cinq minutes pour en introduction et trente minutes pour répondre aux interpellations des des le reste reste trois cent minutes trois cent minutes trois cent minutes divisé par cent soixante cinq jox la un virgule huit mhm. quotient boobu ngay multiplier par par le nombre de de par nga ni un virgule multiplié par quatre vingt et de Benno mu jox la temps de parole Benno mm -hmm. c' comme ça qu'on organise le débat à autonomie bi ñuy def marathon budgétaire bi mais ñun ñoo toog suñu bi ñu ne ah ñu ngi jëm élection présidentielle affaire u parrainage léegi mu ñëw on au mois de octobre novembre élection yi c' fi nekk di jël marathon budgétaire bi di temps mu jëm on va prendre trois ministères par jour et aucune séance ne dépasse cent vingt minutes. Hmm. c'est une décision autonome. donc tey premier ministre bu ñu bindoon noonu rek lay demee. mais est-ce que mën na ñëw sur la base d'un faux règlement ah, intérieur loolu mooy débat bi en fait. Le, le, non la question du la question la la la la constitution est au-dessus du règlement intérieur constitution bi imposé na ko loolu mais na ñëw def ko après pour le reste ce ce ce premier jour installation assemblée bi lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko mooy manquement yi ci nekk manquement yi ci nekk mhm. le règlement interne pas souple maa lay jox benn exemple maa lay expliquer léegi ni ñuy répartir temps de parole mhm. xam nga ñun non inscrits yi ñaata lañu temps de parole lañu am vingt minutes non inscrits on est dix ku nekk boo xoon une ngay wax mhm. yow tu t'imagines année bi ñu commencé l'exploitation du pétrole au Sénégal débat d'orientation budgétaire pour la première fois on a une effectivité des recettes du pétrole dans le budget nga am quelqu'un comme Thierno Alassane Sall qui a été de l'énergie mhm. bokkoon ci ñuy démissionné ndax bloc yi ñuy attribué à Total mais ku mel noonu soxla nañu ko déglu xam nga boo ko ñan lay wax une minute lu tax parce que règlement intérieur bi dañ ko bindee noo xamante ne dafay dooleel le groupe majoritaire mhm, mhm. mais lu ñu war a xulaat la parce que toog nañ pour la première fois assemblée bi daan yëpp lu ñu war a xool bëgg a génne benn groupe. ñooy la ñooy la la groupe bi mënoo fi mënoo fi mënoo boo fi génnee mënoo former beneen groupe wala mënoo adhéré beneen groupe pourquoi parce qu'il y avait un problème Diagne Fada Abdoulaye Wade ñu vérifié ko. Mm-hmm. on te dit que le mandat du président est cinq ans le mandat du bureau est un an chaque année on reprend mu indi mm-hmm. yeneen xulatuñ. Mm-hmm. il y a tellement de choses à changer dans ce règlement intérieur là et tey aujourd'hui le président la bokk na ci aussi dogguma la incompatibilité yenn ci fonction yi maanaam un député qu'on interdit d'exercer alors que mën na toog ay mois yu bëree bëri du sax ñëw assemblée ouais. au moins cinq mois sans travailler c'est mon cas j'étais dans l'administration on me dit il faut que tu libères ton poste mm-hmm. j'ai dit non on n'a pas de fonction publique locale <laughs> man je pas dans l'administration ne me considère pas comme tel je mm-hmm. travaille dans le collectif ñu ne am ay yu mu bëgg mais Guy Marius Sagna fi la doon toog chaque fois di wax nit ñi nekk assemblée bi budget bi leerul dañuy sàcc suukaru koor patati patata mm-hmm. mais ñoom ñoo falu ñoo jot nguur ils ont l'occasion de changer comme ni mu la ko waxee léegi donc réforme yooyu day ñëw par la force comme ça a commencé par la justice ça va arriver au niveau de l'Assemblée nationale mm-hmm. mm-hmm. donc pourquoi changer le texte aujourd'hui changer wat ko encore dans quelque temps mooy la même chose ki mu bi la constitution dit qu'on

mais justement c'est ma question le 15 c'est dans une semaine est-ce qu'on a le temps de revoir tout ça sinon dina exécuter li nga xam ne moom mooy menaçam bi mais ça ça il faudrait que que que que li gën jamono ji mooy lan li gën mooy que premier ministre na teg loolu ci suuf mhm. na teg loolu ci suuf ça ne rapporte on on n'humilie pas les institutions et puis moom il doit ça à cette assemblée là mhm. parce que gis naa bi coow li amee ba léegi ku nekk di ciy profiter bëgg a bëgg bëgg a humilier bi bëgg toroxal assemblée bi. oui y a le cas Mimi Touré qui pense que vous n'êtes plus mais Mimi Touré débat bi ñu amoon bu vous rappelez premier jour installation bi ñu waxoon ñun dañ ne woon ministre yi waruñu siéger. Mhm. parce qu'ils ont été élus au mois de juillet donc non waruñu fi siéger waruñu fekk ñu démissionner ou pas ñu ne ñu non c'est pas légal mais c'est pas ce Mimi Touré là aujourd'hui veut nous que l'assemblée doit être dissoute le 31 juillet dama bëgg préciser Mamadou Awa. oui et j'ai la prétention de parler au nom ay jullit ay nit yu baax lañu et amu fa kenn ku fa toog en te disant que man dama bëgg lu may encadre wala lu may sécuriser ba moo toog fi pendant cinq ans non su fekkoon ni tey di gisul tey nañ gisul tey parce que ñun ba ñuy fallu ñëpp xamoon nañu assemblée bi du weesu deux ans. Mm-hmm. ñëpp xamoon nañu préparé. tout le monde s'est pour ça amul kenn ku fa bëgg a toog garder sa ay acquis wala am avantage boo fay garder no

l'assemblée là les gens ont eu des positions de conviction et nañu dañ ci war jàng parce que au début bi ñuy voté budget kan moo doon voté budget mais Benno ak ak ak ak ak ak ak ñoo doon voté budget yi mm-hmm. bi loi dialogue bi njëkkee ñëw kan moo ko voté Benno taxawu ak wallu ñoo ko voté bi loi report élection yi ñëwee ak modification constitution kan moo ko voté Benno ak wallu chaque fois dangay gis intérêt yi dañuy jógee fii jóge fii jógee fii mm-hmm. ça montre que la politique est dynamique la réalité politique est dynamique il faut faire en sorte que nos textes puissent gérer cette situation là loolu mooy l'objectif mais opportunité bëgg si profiter bëgg toroxal assemblée bi assemblée bi amul kenn ku fa toog parce que da nga bëgg a toog wala da ngay da nga jàpp ne dissolution warul am solution bu waree am na am mais il ne faut pas humilier l'assemblée parce que c'est une institution importante de la république et ñi mën a waxtaan ak premier ministre de en tout nañu waxtaan moom mu teg suuf affaire DPG boobu menace boobu e puis comme il y a des initiatives de part et d'autre yu am bu ñu ko waxtaanee une fois qu'on aura trouvé l'équilibre mu ñëw def sa DPG parce que la DPG elle est pas pour les députés mm-hmm. elle est pour le peuple elle est pour les partenaires du Sénégal mais si elle est pour le peuple kay mën na ko defee euh, devant de l'Assemblée c'est la constitution moom moo ko mm-hmm. parce que les représentants du peuple c'est l'Assemblée on est dans une démocratie amul Sénégalais bu n'importe quel Sénégalais peut se lever et te poser des questions c'est les députés qui ah, peuvent poser des questions et ce serait magnifique pour ce président-là d'arriver dans une assemblée où il n'est pas majoritaire de décliner sa vision du Sénégal et même sa vision de l'assemblée ñeneen ñi dañu jàpp ne problème foofu la nekk en fait décliner sa vision du Sénégal euh, alors que le projet est en train d'être réécrit wala réadapté au contexte Euh, euh, voilà est-ce que amul politique tuuti ci biir man gisuma politique ci biir xam nga man la laa jàpp man ce qui est important pour moi ce qui est important pour moi à mhm. partir du moment où on n'a pas une LFR c'est-à-dire qu'on n'a pas une loi de finances rectificative mhm. parce que dans les années précédentes les gens avaient mis en place un compte euh, un, un, un, une réserve de gestion qui permettait sur la loi de finances initiale d'absorber les chocs si on n'a pas une loi de finances rectificative il serait important que le premier ministre fixe sa DPG avant le marathon budgétaire c'est-à-dire avant qu'on ne vote le premier budget ñu gis choix yi ñu def ci biir ministère yi qui n'ont rien à voir avec les ministères que ñu mën a sa DPG. Mhm. et je pense que est important que nit évoluer vers ça. il ne faut pas humilier l'Assemblée nationale il ne faut pas humilier les députés parce qu'on en a plus